asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellusiwaat ci naafile yi ñuy jële ci xoratul ayni sëñ bi dafa wax ne guddig juróom benneel ga ci weeru koor ku ci julli ñaari rakka rakka bu ci ne mu jàng ci fatiha benn yoon jàng ci xul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar mel na ni ku julli ci maqaama ibrahima junni raka julli ci jàkkaay màkka junni raka saraxe junni dërëm lele junni ñu xiif te bu ñaanee dees na ko nangu mel na ni it ku jox ndogu xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa wépp bu faatoo it ñu boole ko ci ñi dee ci jihaat te dees na ko musal ci mititu dee te bàmmee lamit dees na ko ko defal mu bokk ca ndëri àjjana ya te buy dekki dana ànd ak leer gu mel ni jant bi di xeeñ gëtt ga gëna a neex te dana tabbi àjjana te deesu ko xisaab te ca mbooleem yonente yi lay bokk bu ëllëgee jërë ngeen jëf